jërë ngeen jëf mbokk internet yi ñuy topp ci Medina TV ci Sénégal waaye ci àdduna wërngal këpp ñu ngi leen nuyu mbokk yi ziar leen ñaanal leen jàmm bu baax a baax waaye di ko sàkku ci yéen Medina TV di leen jaajëfal ci ànd bi ngeen di ànd ak moom ngir lépp loo xamante ne actualité la ci réew mi ak ci bitim réew ngeen mën ko am à temps réel mbokk yi ñu ngi nuyu kon kilifa diine kilifa aada nii ñu nga xamante kon ñoom ñoo nekk ci diaspora bi yàlla suñu borom fëgg seen bopp ñaanal ñi nekk ci kaso tamit suñu borom génnee leen bañ dellu ci seen ay mbokk te yàlla buñ fa delluwaat tey nag waxtaan la ñuy amal kenn koo xamante ne buñ ko tuddee ci biir Faramareen nekkul koo xam ne ku ñuy présenté la ndax min ngeen ko bu baax a baax waaye min ngeen ko itam ci Medina TV muy Cheikh Mbacké Waly eh, jotaay la ñuy sekk ak moom waaye balaa nuyu. asalaamaaleykum waa senegal asalaamaaleykum waa àddina Cheikh Mbacke Wally Ballago Seck maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen sargal di leen delloo seen njukkal di leen ñaanal jàmm gudd fan ak sutura réew mi nu nekk mooy senegal sunu président Diomaye yàlla na ko yàlla defal jàmm ba li mu bëgg senegal mu def ko. di sëriñ sama di nuyu sama sëriñ Cheikh Mountakha Bachir xam nga man taalib sëñ Touba laa man sëñ Touba sama sëriñ di ñaanal Cheikh Mountakha Bachir mu dundu Milan. waa kër Seydina seen xalifa ki leen fi toogal mu dund waa kër Baye Niass Bokkunta Ndiassane Alaaji Malik Tiwaawoon ah ñoom ñëpp nañu dund waaw ñi nga xamante ne nag duñ wax lu rafet duñ wax lu ñaaw lu ñaaw rek la ñuy wax ñu gaañu <laughs> ñi ngay wax lu ñaaw yàlla nañ gaañu ayca <laughs> ayca nuyoo bi am na solo kon ci fàttali rek ñu ngi ci boutique bi nga xamante ne rek moom mooy euh, boutique Nikita Chic Beauté Nikita Chic moo nekk Ouest Foire ci tali nag bi en face xale bu am jom boo xam ne liggéey bu am jom macha allah boo bëggee sol xamante ne yow rek yaa koy ci réew mi ci moom rek ngay dem ni góor ñu bari <laughs> noonu euh, dafa jongo ma nag macha allah hmm, euh, ginnaaw ginnaaw loolu itam <laughs> Cheikh Mbacke <laughs> euh, ginnaaw loolu itam dañuy door waxtaan bi rek ku nekk nag gis na semaine passée li nga xamante ne kon xew na ginnaaw bi mu ngentee ba pare Euh, absence balaa Ballago sekk attiré woon attention yenn internet yi ñu ba naan lu tax Wally ñëwul ci xew bi ñëw na ci xew bi polémique dafa am ba Pawlish moom ci boppam daal di génn wax rek ay kàdd yoo xamante ne yëkkati woon na ko yàggul dara rek ndeysaan ñu gis geste bi nga xamante itam am na ci digganteem ak Wally muy réconcili réconciliation bi nga xamante ne dox na seen diggante jaar rek ci loxo ki nga xamante ne moom mooy Sanex ci diggante Wally ak Pawlish waaw euh, ku xuloo ak magam nga dem jubóole leen lu baax la mhm. waaw ndax àddina la ñu nekk te àddina soo fi nekkee boo bëggee soo fi jugee bàyyi fi lu rafet da ngay def lu rafet. Mm-hmm. waali def kat lu rafet la. Pawlish rakkam la. Mm-hmm. ki nga xamante ni bi nga amagul bi nga melagul nen. Mm-hmm. Pawlish bi mu melagul nen nen nen wax dëgg yàlla la ko waali jël téye ko. waaw mu nekk marchandise waali di ko jaay ba mu jar ki la jaay ba nga jar nag. wóoroo ko tëkkaleeg dara. Pawlish sama xarit la. may nuy bu baax jabaram jaara di ko nuyu moom Pawlish ndax barki dem moo njaay <laughs> la def émission Falma Falma ministre ma koy nuyu sama xarit la. moom soo gisee bi affaire bi amee site internet yëpp moo woo Cheikh Mbacké da nga ci wax du ma ci wax ndax léegi. Mhm. dama bëgg a lu jar wax. Mhm. gis soo ci nekkee bëgg say wax seer da lu jar wax. Mhm. nit dafa war di lu jar wax lu jër ta wax bu ko wax. bëgg ay vieux ay bëgg ay gis ak no non non man dépassé naa loolu. dama bëgg nit buy wax mu wax lu jar a wax pour ñu koy ne kii li muy wax jar naa wax mais réew ñu baree ngi wax te li ñuy wax jar ta wax non. Pawlish nu mu mel ginnaaw yàlla ak papaam yaa waali la. Mm-hmm. nu mel nag laa wax mm-hmm. sama xarit la. Mm-hmm. ma koy ñaanal jàmm ak gudd fan moog jabaram yàlla defal leen jàmm. waaw moom digganteem ak waali du ma ci wax ndax yàlla def na li ñu bëggoon muy waxtaan ba juboo dem na ba xam ne kat kii magam la. ànd ak Sanex sunu mag sunu xarit sunu père la Sanex maa ngi koy nuyu baax muy def ko ci lu baax di borom cees ah mu yóbbu ko loolu la Sanex ku baax la. ndax tamit mënoon na seetaan rek xool. waaye defu ko dafa xam ne ñaar nii méngoo nañ ñaar ñii yàgg nañ mu ne naa leen yóbbu ñu waxtaanaat. Mhm. waaw mhm. xam nga ku baax waalee baax. Mhm. lu maanaam coow li coow li coow mooy xam nga li tax. li muy dégg lépp ak liñ koy wax lépp ci lu ñaaw ak di ko to di ko ñii di toog fii di ko wax lépp boo di kee mu baax ndeysaan. Pawlish tamit moom it nit bu baax la. sama xarit la ñuy ànd Pawlish bu lu ma la wax ne moo ko def rek moo ko def lu ma la wax defu ko rek defu ko ndax dama koo xam mm. waaye comme yàlla def na juboo naag magam loolu duma ci wax mm. Pawlish waali magam la mm. dama ne la bi na ko waxaat naa leen ko te man su ma leen ko waxee bi melul dara amul dara ko romb doo ko xool ku ko romb ko bëgg na cas def da mm-hmm. ko kaanu ànd mm-hmm. dégg nga li may expliqué dama ne bi Pawlish bi nga xamante ni ku ko romb du ko xool ku ko romb da nga koy bëgg a non non booy bi nangam ak nangam ci la waali téye def ko nawle indi ko ci wetam di dëgg moom lu nekk di ko yëkkati teraanga di ko defal. Mm. te Pawlish fàttewut loolu nag wax na ko. ma koy ñaanal jàmm gudd fan moog magam juboo nañ. Mm. waaw yàlla na yàlla def jàmm moom it moo xam ne waali magam la. Mm. gis nga waali boo ko fréquenté dëgg soo ko miinee rek mën nga koo mën nga koo yab mi ngi mel sa sëriñ. soo mm-hmm. demee ba ne bëkk néeg bi soo amul xel dëgg mën naa yab sëriñam. Mm-hmm. ndax oyof gi muy oyof ci wetam. Mm-hmm. waali kilifa la nit ku am valeur la nit ku baax la la. da nga koy téye képp mhm. ku lay yàqal sa nit mi ngi am nitam téye mhm. boo manqué bañ yàqal sa nit yaa xam mhm. mais waali ci réew mi billahi la si laa ilaha illa amul ku ko gën sam papa nee na ku la gën jikkoo la gën sam papa nee ko amul dara lu la wax bu ko gëm waal daa yor teraanga uyu si ko addina wuy si ko lépp wuy si ko mu démystifier loolu lépp nekk ku yaru ku baax ku diiñ ku réel ku mën dimbali ay nit ni waali mel tey am na ñu ko doon mel tey duñ nuyu kenn <laughs> boo ñàkkee nag say xalaat day rafet nit ku ñàkk boo ko fekkee muy xalaat la <laughs> waaw mm-hmm. mais waa lépp ko wuy si succès xaalis teraangay àddina jabar ju rafet mm-hmm. lépp ko wuy si mm-hmm. lu wuy siwul waali li nit di bëgg lépp ci àddina macha allah yàlla defal na ko waali première chose bi njëkk mooy ñaanu waajur ki ne daa gërëm waalee gërëm waale waxal ko lu ne ba ñibbi àjjana coon da koo gërëm a gërëm a gërëm ba ñibbi àjjana jabaram da koo gërëm a gërëm mu ngi nii ci kër gi toog yàlla na yàlla bàyyi kon léegi waali lu muy jalanda loo bëgg loo bëgg rek loolu nit di xalaat am na ko te moo la gën a dal moo la gën a yaru doo ko dégg mu wax lu ñaaw doo ko dégg mu def lu ñaaw kon ñi toog muy xaritu waale ku mën a doon kuy fréquenté waale xoolal li ngay wax ak waale soo xuloo teg waale xoolal li ngay wax ak waale waaw yàlla moom ñëpp jaara kan moom moom jaam ñi yàlla suñu borom jaara am na ñoo xamante ne ñi ngi jaamu yàlla xëyuñu am luñ ndekkee am na ñoo xam am amuñu fuñ fanaan amuñu fuñ fanaan te yàllaa ngi tiim mhm. léegi yàlla mi nga xamante ni moo nekk lu def loolu jaara ñii di wax ñëpp maa leen dégg ci waale xaaj bépp rek mhm. maa dégg ma wax dara waale saa bu ma gindi chaque tierce mhm. chaque minute sama cofeel ci moom di gën a yokk du ma ko tëkkale kenn su ma neexoon soirée ku tëgg ma dem mhm. am naa yére bi am naa mën a sañse bi cheikh am naa tur dem fu ma ka ko may téye ci àddina fenn man a kenn képp koo xam waale boo lu yàlla defati sa diggante ak am cat na nga am personnalité. bu tay naqaree te ko ci démb bi mu neexee. bu tay naqaree da nga koy teg ci démb bi mu neexee. bi ngay bëgg ñoo mujj la jox bi ngay soxla yére mujj la jox waale buy may dàllam yé ak yére xamul lim solo ak lim solul. waaye bul xulóog sa nit rek wala benn malta entente bu ndaw am te waale xulóowut ak kenn mm-hmm. ah nga bëgg a génn daal di wax. yaa may dégg baax mm-hmm. nit day am secret moo ko sa digganteeg sa nit mm-hmm. ndax koo àndal wóolu ko dina am loo ko xamal waaye nit day am secret mm-hmm. nit day am luy daw ci yow waaw waale mën ta defal ñëpp yàlla moom ñëpp te mi bi waali bindu la xarit rek la am ak yow cofeel rek la am sa digganteeg yow ngeen ni ànd te waali bu ko mu a ubbil ko waali ñu bari ci wàll la ñuy tiitaroo ci wàll la ñuy amee li ñuy am kon nag ki ngay amee ci moom li ngay am sa wërsëg di ko jël ci moom te tëju ko bu ko yeb ayca am na solo leeral yi nga xamante indi ko ba tey dañuy continuer foofu macha allah mu mel ne fan yi nag euh, li nga xamante jàmm dafa dox bu baax a baax ci réew mi rawatina nag li nga xamante moom mooy showbiz démb tamit gis nga délégation bi nga xamante ne waa subateel def nañ ko ci jiital Sidi Diop euh, bi nga xamante ne kon mënoon nañ ne moom mooy le principal concurrent de Wally Seck mu daal dem rek ba kër boo ko neexoon kenn du dugg këram. Mhm. Sidi tamit xalaat bi mu def ba ne naa dem seeti sama mag lu rafet la. Mhm. waaye artiste na nañuy seetante avant xew-xew di am. d'accord. artiste yi. nañuy seetante avant xew-xew di am. <laughs> <laughs> Mhm. boo amee sa mag muy star ci réew mi yàlla def ko ni mu ko def réew mi kum neex ak kum naqari waale star bi loo bëgg jaay mu jar waale nga koy jox. réew mi nekk Sénégal xanaa Togo wala Mali wala feneen. mais senegal bi am drapeau bi am version rouge étoile ci digg bi waale star bi. nga bañ ko mooy star bi nga nungu ko mooy star bi mm-hmm. na artiste dem di seetante balaa dëj di am wala feebar di am wala télé di am nañuy seetante mm-hmm. dem di añandoo waxtaan boloot def ay affaire mm-hmm. yeah Sidi li mu def démb lu rafet la ñoom bi ñu ndax man maa ngi tàqalee ko waali barki démb sept heures du matin ndax dañuy toog mu leer dem mm. heure bi ñuy ñëw ñoom maa ngi nelaw mm. waaw fekkuma ci kër gi mm. mais gis naa ko dinaa xarañ loo dugal ko ma kontaan trop Sidi ci dama ko xam waxoon naa la wax naa leen ko waxati ko dama ko xam bu baax. Mm-hmm. waaw te man bi ma ko xamee ci cofu cofeelu bëgg waale la ma wonoon ku bëgg waale mu bëgg la ku bëggul waale boo dee naaw. di mm-hmm. dem ci jaww di ñëw sax ay reex nga may def. Mm-hmm. waaw lim def démb lu nice la. ñëw fekk magam Pape Diouf tamit dama koy gërëm gis naa benn vidéo bu mu waxee lu nice. Pape ma garant la ñu koy gërëm bu baax a baax. wax na lu rafet ne ko Sidi boo jógee fee demal seeti ñëpp. waaw ndax am na ay fans waali yoo xam gëmuñu ko dul kenn gëmuñu kenn waal rek lañ jëm boo bëggee waali ñëw Paris ñu ñëw seetaan si la daggal seen billet boo bëggul waal ñoom dañuy tëdd nelaw mm-hmm. Mm-hmm. yaa may dégg a baax mm-hmm. waaw man ni nga may gis nii xamul tax a dem baali Elas Keita wala ma baali tey benn moom wala seen cofeel ne xaw waali suñ bëggul waal du ma dem soirée kenn man maa moom sama bopp kenn moomu ma mais man ku ma dëkk bi fii ne nga bëggoo waali koo doon doo ma gis doo gis ñeneen waaw. mais mais mais Cheikh Mbacke dafa mu démb geste boo xam ne dañ koo nemmeeku mooy Waly bi mu bi mu akolaatee si Sidi mu daal di mu daal di tuuri xéewal. waaw dafa xam ne kii rakkam la rek. waalee baax rek li ma la wax jaara jaara. Mm-hmm. billahi lazi laa ilaha illa huwa. képp ku yor micro ci réew mi waalee la gën. Hmm? waaw maa ko wax. jaara. Mm-hmm. il faut ñu ubbi sunu xel yi. Mm-hmm. waaw dafa si dafa ñëw démb rek waal jox ko loxo ndeysaan am na foo xamante ne wala dana bëri verre yi su ko xool ko jàkkaarloog moom moom ak yàlla mhm. man géwél laa mhm. ne maanaam loolu am na non dama ne la man géwél laa mhm. man du ndax na na démb dama bëggoon mu judduwaat tey bu yeewoo dafa waroon judd yére bi mu sol kër waal démb dama bëggoon mu def ko cadeau moom denc ko ci armoiram waaw mu def ko fi ko doon waali doon laal yëpp warta sangu démb mu ko ndox di ci dem ku sell ko laal ku baax ko laal joli cœur ko laal dim mhm. barki Serigne Bamba Mbacke loxo bi ko wàll doon teg Sidi tamit xaw ma ci moom ak bon dama koo xam si doon toog di ma yëg téléphone di ma woo mhm. Cheikh Mbacke foo nekk ñu seq jàmm ak teraanga mhm. yaa may dégg baax li seetaane émission bi dina xam li koy wax waaw mais man bi ba gis affaire ëpp waaw affaire ëpp picc bu ne naaw fee wax wàllu ñaaw am na ku ne ci moom koo xamante lu ñaaw rek lay wax waali moom xanaa dem xaru am na koo xamante ni lu ñaaw rek lay wax waale di ko tudd ay yeneen tur. wallaay. moom bi mu gisee patron bi mu yaakaar ñëw démb ci kër ga. kat appi mhm. mu jox waale loxo su gi xool ko ne ko euh, xooloo waale li mu def maanaam si démb <laughs> waale ci gayndem <laughs> la doon jox siidi ne ko demal nga daan foofu songu sa euh, Bercy. waaw. ndeysaan. daal di taxaw ci baaxam daan ne waa Zénith da ngeen teel a génn. Mhm. ndax sama nit mu la. ñu waxtaan waaw béy gaaw jeex waaw siidi toj foofu jóge fa dem songu Bercy. Mm-hmm. kon waale mi ngi koy xamal ne ko lii nga song ci yow ba mu rëy ci yow berse ngi ñëw ci sa kanam xolo mm-hmm. xol boobu mm-hmm. kuy waxal yàlla te ku daan kuy waxal yàlla xam nga ne ba waale ni bërit xam nga ne ku baaxee wax xool waale bi mu tuuree xewal la mu doon jooy moom rek moo ko xam ak yàlla gis naa ay kanam gis nga fa buuse dem présence buuse keccap itam <laughs> war naa indi polémique waaw non non mooy lëg euh, xam nga buuse euh, buuse ñoo bokk sëñ tubaa buuse buuse ñoo bokk sëñ tubaa waaw Boucher ñoo bokk sëñ Tuubaa maa koy nuyu bu baax ndax gis naa li ubbi fii nii noonu rek la kontaan naa gis naa mu ubbi benn restaurant noonu rek la waaw màggaayu waale moo tax bi ñuy ñëw kër ga ñoom ñoom ñëpp ñu def délégation ñëw démb kenn desul mhm. bu la ñetti nit waaye màggaayu waali gars yi ñoo la gën a comprendre li xew <laughs> ñoom mm. la gën a xam li xew mhm. dafa am lu ñu xamul wala. non xam nañ lépp. ñun laa wax ñun ñi <laughs> seetaan. yéen a xamul mais gars yi xam nañ. ah mais doo ñu xamal tuuti. non dafa ne gars yi comprendre nañ li tax ñu def délégation bu toll noonu. Mhm. fa gis nañ après sax dañoo. fotow yi ko fotow jox sa morom. waaw non non loolu rafet la rek waa Subatel li ñu def lépp ñëpp Subatel la xaw ma euh, xaw ma Subatel waaw la. Mhm. waaw ñoom li ñu def lu rafet la. lu rafet lañ def démb ab délégation ñëw ci waal yi. Mhm. léegi nag képp koo xamante ni bëgg nga waal di bëgge waal Lat Diop Diguène Mbaye ah waal dégg li mu wax démb képp koo xamante ni bëgg nga ko na ko dem dooleel mhm. képp ku am temps ci Paris Italie Australie ba Suisse Amsterdam na ngeen fa dem jàppale ko mais le même jour di tëgg moom itam ca Italie non xam nga tey benn affaire mooy maa ngi buuse laaj nga ma buuse buuse tey euh, du ma ko wax dara rek mooy damay wax ñëpp ci àddina koy wax ci dara ci Wally na nga xool bu baax li ngay wax waaw dafa nekk borom xool bu rafet dafa nekk ku généreux dafa nekk nit koo xamante ni dafa baax lool Wally baaxam gu sax moo tax nit yàpp ko baaxam gu ëpp moo tax nit yàpp ko buuse waali rakkam la <laughs> buuse waali rakkam la waaw wax dëgg yàlla waali rakkam la waali ku baax la ku généré la boo ñi daan toog rek ñi xamante ni bokk nañ ci feneen daan wax waali lu ñaaw ñoom xam naa ne démb wax dëgg yàlla fanaan seen i kër ndax ñoom kin yaakaar def ko njiit moo déplacé wu ànd ak délégation ñëw seet si Lat Diop Decguene Baye waali rafetlu ko ak accueillir leen bi ñuy dem mu teral leen maanaam ñoom tey démb ñi nga xamante ni mosuñoo ñëw ci waali yëpp ñoom bin jàkkaarloog waali yéen ñi ku ngeen ci demoon ne démb jàkkaarloo nañ gaynde nit nga koy wax lu ñaaw rek te looloo xam kim doom waaye say njiit bu demee ba ñëw nettali la di xam ne man ka ma doon jollu mbeer di koy wax wax ay wax ndakate gaynde la waali gaynde la man nga koo yàpp nii mu taxaw waaye bu la joxee loxo nga jox ko loxo boo ko siggee xool di nga xam ne kii gaynde la waaw nañu wàññi wax ju ñaaw ji te bàyyi wax lu ñaaw ji te nekk ay nit nañ nite waaw waaye li mu def démb barki mu Muhammad yàlla kontaan na ci yonent bi kontaan na ci sëñ Touba sëriñam kontaan na ci wala démb gën naa wane valeur ne man nii laa mel wala tollu waxoon naa ko waxati ko nee na leen wala tollu dépassé na ay xeex ki xuloo wala ci joob ak dimbali ay rakam garab yi dee wala suqat leen ñu dund ci la wala toll nañ yëpp te ma leen wax lépp man yàlla daf nga ko indil chaque jour dama leen wax na leen kii ni ngeen koy waxee nii bokkut ak yéen bokkut ak ñii waaye geste bi mu def démb c'est su noble la sa rakk seet si la koo xamante ni bokk nga ci ñi ni ko dalal baa ñi ko jëkk a jox ci seen bu mag seet si la di dem nga yëkkate million ne ko boo rombee rek loo bëgg nga jënd ko waale foofu la nekk waale noonu mu toll jëf ju rafet jooju mu def foofu waale noonu la mel waale xaju ci lu ñaaw du def lu ñaaw mm-hmm. xamut lu ñaaw mm-hmm. mais mais mais tey jii suñ dee wax entre ñoom ñaar comme ni ñu ko waxee léegi mën nañ ne amuñu jafe-jafe mais faa ñi nga xam ne ne ñoom ñooy wër tamit euh, man am na koo xamante dama koy seetaan saa su ko seetaanee damay moom rek lañu waroon indaale kër ga dem. Mhm. am na koo xamante ni du jaar sax ci turu waali te foofu la bokk. muy kan xaw ma turam man xam nga <laughs> man ñii wax nii xoolal mhm. ñii wax nii ku ma ci du ma la xam man xamuma leen barki si Amadou Bamba Mbacke xaw ma leen léeg bu ma bu soirée jeexee ma ñëw Gilato euh, su may lekk léeg-léeg nit nuyu ma na ma Cheikh ma ne ko waa ça va mais du la xam mhm. yow yaa may xam mais man xamuma la ndax man keeroo ma man lijjantiwu ma la. waaw man lijjantiwuma la man waali rek boo ko bëggee ma bëgg la soo ko bëggul del naaw di dem ci asamaan si ñëw bëgguma la damay foog ne dëmm rek nga bu jëfuru mhm. waaye dama ne trois jours yi ñun romb ba quatre jours yi waali wan naa wane ne maag yéen bokkuñu mhm. quatre jours yi rek yow wan ne wane na ko mhm. looy man di wax ba yëg ci ascenseur bi ascenseur bi daw ba taxaw cinquième ma ubbil la wala nga waali ubbil la nga jàkkaarloog waali billahi lazi laa ilaha illa huwa di nga xam ne roy duñu roog pire mhm. boo mën ngaa toog sa nag sa ñeenti nit wër la sa juróomi nit yi xamante ni yow la ñu yaakaar waaye boo da duggee Nord Foire jaar ci bi ascenseur bi daw ko doon bu waale taxawee ba nga jox ko loxo di nga xam ne Angleterre pomme de terre bokkul. ayca euh, euh, même jour bi nga xamante ne kon ñoom ñaar bokk nañ ko même événement euh, waal di tëgg fi nga xamante ne moom mooy Italie ca Milan Sidi di di di tëgg fi nga mooy a mu lu mu yàq ma xaw a Wally yéene na dem ay fansam yéene na ñoo dem waaye bis boobu rek a ma jaaxal. Hmm. waaye xam nga Wally comme comme euh, président la mën naa yebale. Hmm. mën naa yebale ay mille personnes rek ne leen demal leen ko génn ci Farmarène 2000 personnes <laughs> yu ne France waaw ndax xolam toll na noonu ëpp na ko siidi rek kam la. waaw te Sidi def na geste boo xamante ni démb wax dëgg yàlla dama ne mu yeex ak xam nga tey man am na ñu mën a gisee ne ah dafa yeex avant muy ñëw. Hmm. am na ñu koy gisee ndax xel yi bokkuñu waaye def na sa si rafet dem ndax dëgg yàlla bu dëgg neexee yàlla rek mm-hmm. siidi waali sa mag la mm-hmm. yaay war a dem ak sa xel mm-hmm. uh, Sidi boo yàqulee yow rek yaay des ñu bari ñu ngi naan bëgg nañ la bëgguñu la soo yàqulee billaahi yow kese la am na ñoo xamante ni Sidi bu metti woon tay tay doo leen gis te ñu ngi yuuxu di naaw Sidi lañ gëm nangam àndal ak sa xel fii àndal ak sa maayin nga dal waali sa mag la nga jàpp ko bi nga nee bërët kenn gëmagula la ne boo boo ma dàqee jotoo ma kajal bunt bi fëggal bunt bi dóoral bunt bi dajjal bunt bi looloo indi tey Zénith mu ne nag ma topp rek teg ma faar daal di yuuxu daan xam ngeen kii mooy Sidi déglu leen ko tey ngeen dégg dëgg ca foog la woon bu la kenn ruux waale sa mag la te mag ji nga am kenn gënu ko ndax mag ju am personnalité pare bari la lool yërëm ay rakkam mm-hmm. bi mu lay jox loxo di lay yëkkati booba kenn ñi la xam bariwul waaw bi nga ñëwee vok mu ne la na nga dajj bunt bi soo fëggee kenn ubbilu la na nga bunt bi na nga këdd bunt bi booba kenn xamu la ñi la xam bariwul mm-hmm. waaw amawoon entourage bu bees am na nit boo amee sa nit buy sa mag nekk star ci réew mi yàlla def ko lu mu deful benn kenn da koy téye bu la kenn ruux <laughs> ñi lay ruux ñooy toogaat ci suuf naan booy bi dafa soof ak booy bi mu defaluma lii mm-hmm. yaay ànd ak sa maayin mm-hmm. xam ne yaa liggéey bi la yàlla defal sa baat kenn fekkewu ko bi la yàlla ne di nga nekk waykat am ñu bari ñu ko fekke wut kon yow yaay ànd ak sa xel siidi mhm. nga jëm nag muy sa maa ngi ñaan sëñ Tuubaa sama sariñ yàlla na dox yàlla na fees li nga ci bëgg yàlla nga ko def mhm. ndax man comme Waly wax na rek man ci ko Waly wax rek ma wax ci yow lu waaw Waly comme Waly jox démb def naa ak moom nii damay wax damay wax lu baax waaw mhm. waaye man moom ku geer ak Waly ma indi samay fetal ak samay bal yàlla la yàlla defal jàmm ñi lay entouré ak ñi lay kii ak bu la kenn gëm loolu newul ci yow loolu moo lay yàqal lu bari ñu bari jóge nañ ci yow te loolu moo la ko yàqal ñu bari jóge nañ ci te loolu moo la ko yàqal ndax nit ñi gëmuñu kenn dañuy wax rek waaw àndu ndakaaru la waaw àndu ndakaaru la mhm. ndakaaru dafa am ànd léegi nag bu fi boo fi nekkee àndal ak ñoom ni ñuy ànd ak yow ndakaaru waaye am na nit ñoo xam bul ñoom àndu ndakaaru àndu ndakaaru mooy ku gëmul kenn boo waxee fii suba nga dem fee suba waaw loolu mooy àndu ndakaaru aña mhm. kër kii fen fa ana ñu kat kii fenn fa loolu mooy a Ndakaaru àndal a sa xel booy nga sénégalais nga lu nekk mën nga koo am waykat nga mm-hmm. waaw di nuyu ay Tarba Mbaye Elas mm-hmm. Kayta mm-hmm. ñoom moomoo yàlla na yàlla defal jàmm waaye le king mooy Wally Ballago daal boo bëggee nekk ak man jàmm bul laal Wally man laalal ku la neex del def lu la neex mais star bi nga xamante réew mu ne dafa am star jaara nee naa la dëkku fali papa fali star ba <laughs> boo demee Mali Sidiki la <laughs> waaye Sénégal Wally la am na ñu ñu koy xaw a COP 21 ñu ngi koy xaw a kii de. COP 21 mooy ñan. COP 21 xale yi temps yi téye réew mi <laughs> nee nañ sa stade bi. non non non moomoo la. Mm. moom ma ko wax dara. Mm. ndax dégg ko moo dégguma ko ma wax wàllu ñaaw. moomoo mm-hmm. moom. bu ko xale yi nee nañ fi mu ne moo téye réew mi nag <laughs> dañ leen di may entrée rek. xale yi entrée rek lañ leen di may <laughs> waaw mm. xale yi wax noonu. dañuy sol rek seen morom leen yóbbaale may leen intérêt awma lu may wax ñoom mais moom moom du ko wax dara mhm. ndax daf may seedeel moom lu baax ci ñoom duudu mhm. ne leen Cheikh Mbacke dafa gëm waali fonk waali mhm. am euh, fa dara waali waaw loolu tax ma bëgg ndax Cheikh Mbacke nit la ku am moom daf may waxal loolu ay waa këram ko nettali dernier euh, dernier point rek ñu ñu jeexal itam ñu gis geste bu rafet boo xam ne nag keroog euh, képp koo xamante ne maa reen nga nekk rek kontaan nga ci muy présence wu ki nga xam ne mooy Kéba Seck pour la première fois ñu gis ko si seen waali Seck non daan na ñëw Kéba ah daan na ñëw daan na ñëw daa gëj a ñëw mm-hmm. daa gëj a ñëw kon waaw waaw kon gëj nañ kooku tamit papa ak doom la mm-hmm. Kéba papa ak ak waali papa ak doom la Kéba ak Thione Seck bokk ndey ak baay mm-hmm. waaw ñoom nañ xam ne ñooy ñooy papay waali ci kaw suuf waaw mooy li ma la wax sànq rek nee naa la nit ñi na nañuy dem lu bokkul ak dee ak xew-xew dañuy wootante di seetante day gën a rataxal di diggante mais Kéba papay waali la waali doomu Kéba la te barki Demba Ndiaye dafa wax lu moom Kéba ne ko sunu sakk nga. waaw ne ko sunu sakk nga. wax dëgg yàlla ne ko da ngaa ñàkk jot ma ñàkk jot waaye xam naa ne maa la ëpp jot moo tax tey ma teew. ndeysaan waaw Kéba dafa wax loolu. waa doomam la dañ ko gën a jekk teg loxo. xam nga yan doom moo gën ci doom yi. Mm. ban doom moo gën ci doom yi doom ji am jom. Mm. waaye ku ku ne ci réew mi bëggoon nga mu bokk sa askan. Mm. waaye yàlla maa reen la ko jaarale. kon mooy seen sakk. Mhm. yal na ko yàlla defal jàmm. Kéba ak ñoom Ousmane ak ñëpp. yal na leen mhm. yàlla defal jàmm. waali seen doom la waaw. doom ju leen bëgg la doom ju leen la. yal na leen yàlla defal jàmm. Sénégal <laughs> ñoo ko moom. ñu ngi lay jaajëfal réew mi ñoo ko moom. Mhm. waaw di gërëmaat sama jigéen bi nga xam mooy Nikita. xam na lu ma sol rek. waaw caraxu joor yi ma sol lii ma sol lii yëpp. ginnaaw yàlla moom la. yàlla na ko yàlla defal jàmm yokk koy sufaar la nekk ci tali nag bi. en face salsi ah pharmacie salsi Ouest Foire ay waa salsi ña ngay nelaw de waaw di ñaanal jàmm Waly Balago di wax waa Mbour na ngeen pare suba Waly Balago waykat bu mag bi mi ngi ci Rolls waaw Waly Italie na ngeen pare mhm. Waly Balago mi ngi la le 29 mhm. ah Allemagne na ngeen pare Amérique na ngeen pare waaw na ngeen pare ndax waykat bu mag bi nag wax dëgg yàlla takkaat na jaaj yi mhm. di ñaanal Sénégal gépp jàmm sëriñ si nekk Sénégal sunu magu diine yàlla nañu am jàmm waaw képp ku bëgg sëñ daal bëgg naa la ku bëggul sëñ tubaa bëgguma la jërëjëf képp ku ne ci réew mi kennal sëñ tubaa man kennal naa la koo fi nekk loo koo doon bëggoo sëñ tubaa man bëgguma la mm. foofu laa ne jërëjëf Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul waaw jërëjëf jërëjëf Cheikh Mbacke yi kontaan nañ bu baax a baax di la jaajëfal ci disponibilité bi saa su nekk su la Médina euh, TV soxlaa da ko koy yombalal donc ñu remercier la bu baax a baax remercier kon boutique bi nga xamante ne ñoo ñu permettre tey ñu toog tranquillement def suñu émission ñuy euh, muy Nikita Chic Beauté macha allah ñu ngi koy bu baax a baax baax di wax ne kon gars yi ñëw leen fii pour lépp loo xamante ne sañse la chemise t-shirt Lacoste lépp loo ah, xamante ne sañse la euh, da ngaa fàtte ñi am nañ fi wàll saagam lépp ngi fi mi noonu mbokk kon ngeen ñëw lépp loo xamante bëgg ngeen ko incha allah lu classe lu ci di ko fi am su ko defee mbokk ñu jox leen rendez-vous très prochainement ak beneen daanaan gërëm ma sàlla sàmba nga xamante moom laay àndal ci caméra bi jërë ngeen jëf